moo dem ministère des mines mais à part Omar Sarr am na Ali Saleh Diop Ali Saleh Diop léegi mooy ministre de lélevage élevage à part euh, Ali sale Diop euh, am na itam euh, beneen ministre bu bees boo xamante ne nii dugg na ci biir gouvernement bi mooy ministre de l' intérieur muy loo xam ne tam mbett la ndax moom xam nañ ko miin nañ ko mooy Antoine Diome moo nekkoon moo nekkoon. moo nekkoon AJE agent judiciaire de l'État léegi moo wutu kii di Aly Ngouille Ndiaye ca ministère de l'intérieur muy euh, ministère ministère bokk ci ñetti ministères yu bees yi nga xamante ne ni dugg nañ kon ci biir euh, gouvernement bi ni ñu yaakaaroon ni nag euh, tasaay bi noonu lay méttee méttee ko kon ñu fàttali rek baamtuwaat liste bi très rapidement Sidiki Kaba forces armées Abdoulaye Daouda jàlloo finance budget Malick euh, Sall day des justice Aïssata Tall Sall ministre des affaires étrangères Antoine Diome ministre de l'intérieur Mansour euh, fay ministre des infrastructures Amadou Hott ministre de l'économie plan coopération Mariama Sarr fonction publique Abdoulaye Diouf Sarr santé Ndeye Sali Diop femme famille Omar Sarr mine Moussa Balde agriculture moom dafa toog euh, Serigne bay Thiam eau assenissement Euh, Alioune Sarr tourisme moom itam dafa des ñi ngi doon euh, lam-lamee di wax digganteem bu naqari ak euh, Moustapha Niass ak Omar Gueye day des ba pare léegi mooy porte-parole du gouvernement collectivité territoriale Mamadou Talla day des éducation Cheikh Omar Anne des enseignement supérieur Sophie Gladima moom moom monté grade moo joge mine jël ministère du pétrole wutu foofa Mouhamadou Mokhtar Cissé Samba Ndiobène kay itam monté na grade ndax jóge na élevage léegi dem euh, développement communautaire remplacé foofa euh, Mansour euh, fay Moustapha Diop des industrie Alioune Ndoye des pêche Samba Sy travail Abdou Karim Sall environnement Matar Ba des sport Abdou Abdoulaye Sow Abdoulaye Sow xam nga waxoon nañ ko keroog. ñëw mhm. nañ day dugg. dugg na remplacé Karim Fofana. remplacé ci genn wàll gi moom dañ ko toftal sax ab secrétaire d'État moom mooy yor urbanisme Assane kan moo dem commerce. Assom moo fa ne. Assom Assom waaw Assom dafa des Abdoulaye Diop dafa des culture communication Ali Saleh Diop dafa bees dugg jël ministère de l' élevage Néné Fatoumata Tall dafa des Zahra dafa des daam Diop. emploi ak formation professionnelle kese la yor léegi kii itam ku bees la Pape Amadou Ndiaye moom moo yor ministère spécifique bi nga xam ni moom la Seydou Gueye doon wax léegi muy ministère de l' artisanat et de la transformation moom itam euh, minuñu ko bu baax a baax mais bala ñoo yëkkati jotaay bi bu soobee yàlla dinañu def suñu kem kattan ba gën leen xamale ak euh, moom ba Diatara économie numérique remplacé foofee Ndeye Tické Ndiaye Moïse Sarr secrétaire d'État yi moom ci sénégalais de l' extérieur Mamadou Saliou Sow Yacine Camara saxaar gi euh, Victorine Dey euh, wàllu logement mu nekkoon kon euh, Babacar xanaa rek ñu màbb ba présidence de la république foofee itam Mahmoud Saleh ministre d'état directeur de cabinet du président de la république Omar Samba Ba sànq ñu ngi ko doon wax avant ñuy commencé mujj nañ ko confirmer ministre secrétaire général présidence de la république Latif Coulibaly secrétaire général du gouvernement day dellu ci poste boo xam ne mosoon na faa nekk ministre directeur de cabinet politique président de la République Augustin envoyé spécial Cheikh Kanté Cheikh Kanté jox place am léegi MPSE Abdou Karim Fofana moom léegi day génn ci hmm. gouvernement bi euh, dem euh, ci cabinet président de la République ci ñu dindi dañoo fàtte Maxime Jean Simon Ndiaye génne nañ ko moom génne nañ ko hmm. euh, carrément